livre blanc man livre rouge là, indi mingi ni. le livre rouge livre rouge yi boo ko xoolee jëf ju ñaaw du Macky Sall de fukki at ak ñaar yëpp ñu ci livre rouge. Dina ko publier inshallah, allah fan yi armata dina si wax ak ñoom léegi le livre rouge bi bokk na si le scandale financier, scandale foncière emprisonnement torture assistant,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

yéen a doon wax ak kilifa diine yi yéen a nangu seen passeport diplomatique yi ba pare ngeen bëgg nag di def ba toog di toroxalaat askan wi loolu duñ ko accepté tey duñ ko accepté ëllëg kon monsieur le ministre ñëppante la boo xam seen demande sociale pour le peuple sénégalais mooy nan tas assemblée nationale ba pare ñu jàpp leen tëj si kasam parce que ñii waruñ noo dox yéen warut leen dox si dëkk bi yéen yéen a sàcc xaalisu réew mi yéen nit ñi kon jàpp nañ tey Ousmane Sonko gàcce nga laam ba si doon